réew mi nag euh, dafa am lu mu bindoo dañoo dem ba wax yombatul Sénégal gor ñu bari fi mu toll lu leen naqari ak lu leen neex dañuy toog ni cel ndax jamono demee noo xam ni saa yoo waxee ñu am fuñ la féetali waaye nag li may wax dama ci jël sama borom témoin ndax nit ki loo ko xam-xam suñ borom mi ko sàkk indi ko fi gën la koo xam man lépp lu may wax ci réew mi rek yàllaa tax ma di ko wax ak Sénégal waxuma ngir usmaan Sonko waxuma ngir Macky Sall Sénégal laay waxal te bërki dem loolu laa wax sëñ sëriñ taxaa ni ko man réew mi moo ma ñor jàmm ci réew mi moo ma ñor réew mi tege ci aw yoon moo ma ñor te jàpp naa ne su ma waxee lii képp ko xam sama sama doxalinu démb xam sama doxalinu tey jàpp naa ni su la neexee war nga ko mën a gëm kii yàlla teg ci bopp réew mi tey muy président Macky Sall 2009 2010 2011 ba ni ko sunu borom di joxe ngóor gi daanañ bokk ay réunion di toog di xalaat daanañ waxtaan maa moom ci loo xam ni njariñal réew mi kese moo ko taxoon a jóg kon tey suñ demee ba tollu fii la nga xam ni moom lañ daa seq di ko waxtaan muy réew mi man foofa laa nekk ba léegi réew mi kilifa yi diine yi maa ngi ñaan ñoom ñëpp kenn ku ci ne na xam ni côté bu ne sa njaboot a nga fa bu dee takk der yi moo xam gendarmerie la moo xam police la moo xam lu mu mën a doon soo demee ca mbooloo moomee da nga fa fekk njabootu Sëriñ Muntaxa taxa nga fa fekk ñi ma tudd seen tur ñëpp kenn ku ne ak njabootam ña ñuy taxawal di jaamaarloog ñoom bu ñu demee ca mbooloo moomu kon seeni njaboot a nga fa kon nañ jàpp na seen ñaari njaboot ñooy jaamaarloo réew mi nag jàmm fi xaj mënuñoo am lu dul jàmm te sun mag ñu baax ñi nga xam ni tey ñoo ŋànk diini ji ba diini ji ak si fii seen warugar def nañ ko jóge fi bàyyi ñu fi ndono ndono loolu nañ ko sàmm ba dara du ko yàq ñu xam ni ñoo jaboote nit ñi kenn ku ci ne responsabilité boo war a jël na ko jël te yàlla tax parce que kilifa ak diine wala njiit moo xam président de la république nga moo xam ab xalifa nga moo xam loo mën a doon ba ci borom kër gi ne ci këram fi ñu koy xamee nawee ko fa mooy bu responsabilité jotee euh, may ñaan président de la république mu xoolaat entourage am parce que mën na jàpp naa ni entourage am am na lu ñu koy wax loo xam ne lañ koy wax demewul noonu entourage am yàqal nañ ko digganteem ak nit ñu baree bari soo su nit waxee ñu ne ko diw sàngam dalaa bañ diw sàngam dalaa contre nit ki nan ngay mën a participer ci li ko teg ci réew mi façon bu ne nga xeex ko fi ci jamonoy Abdoulaye Wade ma ànd ak Ousmane Tanor Dieng ñoom ñëpp ba ci Moustapha Niass mi nekk président assemblée national am na kuréel goo xam ne bi ñu koy bi koy formé ña ko formé Moustapha Niass moo ne leen bu ngeen bëggee ñëpp daje da ngeen koy jox Serigne Abdou Mbacké mën naa coordonné ñëpp te boobu dañoo jàppoon ni su su mbir ma taxawee réew mi dana ci gis boppam looloo ñu ci dugaloon ñun war wutuñu palug àdduna amul benn poste boo xam ni postu àdduna la boo xam ni dañ koy joxe boo xam ne man bëgg naa ko amut lii ma sëriñ Touba sédde bëgguma ko weesu ñaanuma yàlla weesu ko te duma ko weesu kon ay palag ay alal ak suuf ak dara lu ma ci intéressé wala loo xam ne moo ma tax di jóg wala moo ma tax di wax amut man li ma bëgg rek réew mu tege ci yoon ku yor réew mi doxal doxal yoon yërëm nit ñi dimbali leen ba kenn ku ne li nga xam ne mënoo ko ñàkk ci àdduna te mooy dund nekk ci jàmm yar sag njaboot jaamu yàlla ak foo mën a nekk moo xam jullit bi nga moo xam chrétien bi nga loo mën a doon rek nga nga nekk nga nekk ci lool jàmm jooju lañuy ñuy woote ci Sénégal euh, kilifa itam nañ xoolaat bu baax seeni entourage parce que am na ñoo xam ne dara waru leen ump ci réew mi ñoo ngi profité di nuyu monse monseigneur Benjamin Ndiaye euh, damaa amul jot waaye su ma amoon jot fan yi danaa dem seeti ko waaye nag ñoo ngi koy ndokkeel di ko xamal ni lii may wax nii cër bi ci Sëñ Muntaxa am Euh, Thierno Mouhamadul si am ko sëñ si man soo am ko ci yeneen këri diine yi ci Sénégal yëpp am ko ci noonu la ci monseigneur Benjamin Ndiaye amee amee amee rôle boobu ndax kilifa la nekk ci réew mi yilif mbooloo te macha allah mbooloo mi tam euh, ci yar lañ leen xam liggéey calme jàpp seen njàmm man de wax dëgg yàlla jàngu bi loolu laa xam ci ñoom xaw ma ci ñoom leneen kon na jàpp ni moom it role bi nga xam ni suñ mun Mountakha am na ko ci réew mi ci ñim jiite. yeneen kër yi am ko ci ñi ñeneen ñi ñu jiite eh, monseigneur Benjamin noonu la ko amee ci ñi mu jiite nañ jóg taxaw ci sunu réew mii seet li nga xam ne moo ñu mën a jëmale kanam ñu nekk ci te bàyyi détails yi ah man eh, eh, sama gis-gis bari na lu xew loo xam ni ñi ko war a yëg yëguñu ko boo gisee man ni kilifa yi diine yi nañ seetaat seen entourage. tey su ma doon joxee exemple dama naan tey sëñ Muntaxa ni président de la république di jote lu xew ci réew mi ngoon gu jot man jàpp naa ne sëñ muntaxaa mi ma mi nga xam ne moo ma yilif yilif fa ma nekk muy Daaru mu jàpp naa ne yoonu murit tey kër gu fi ne waxuma la Daaru Muxti yoonu murit ku fi ak foo waay mën a ne lu fa xew balaa ngoon a jot war naa dugg nopp suñu muntaxaan war nañoo dem ni ko lii xew na daaru salaam lii da xew na daaru mu lii xew na kër maam Cheikh dafa Fall lii xew na feneen xew na feneen xew na feneen dara bañ ko umb jàpp naa ne bu fekkee kilifa daa jaboote loo xam nii dayo bi suñ borom subhanahu wa taala rek moo ko xam jàpp naa ku ko bëgg dimbali ku ne la nga xam ni ca la njabootam ne suñ jubee na xam suñ dëggee na xam lu fa xew na xam jàpp naa nag kilifa yu bari ci Sénégal amuñu information ñi leen war a wax information yi xew bañ xam ko man caa def lañ ca war a def information yi du àgg ci ñoom ba tax na bari na kilifa gu ñuy sikk goo xam nii ña ko wër nekk ci ñoom ñoo leen yóbbe lool kon nag maa ngi xamal président Macky Sall xamal président Ousmane Sonko. xamal Sénégal yëpp ne Sénégal Sénégal yooyu ko moom nañ teg réew mi ci dëgg ku jàdd nañ la jaarale yoon waaye ku nekkul ci dëgg te la ñëpp wax ni nekkoo ci dëgg réew mi Sénégal yi ñoo ko moom ñoo ngi ñaan jàmm ci réew mi eh, di ñaan ñi nga xam ne ay responsabilité lañ yor ci réew mi te jiite mbooloo nañ seetaat seen taxawaay bu baax a baax ndax ku fi nekk xalif li fekk faatuwoo kenn mënu ko dindi nit nag mën naa nekk président ci ak dundam di dund ba tey te dootu nekk na ab Diouf a ngi fi Abdoulaye Wade a ngi fi man de Macky Sall diggante deux mille mille 2009 2010 2011 taxaw bu ne taxaw naa ko ci wetam ànd ko Ousmane Tanor Dieng pour mu jot ci réew mi parce que dañoo jàppoon su jotee ci réew mi li Sénégalais yi bëgg dana ci jaar ba lañu la metti woon ci changer changer régime buñ ko buñ buñ ci jotee fi Sénégalais yi bëgg ak li ñu yaakaaroon ci moom ñu am ko ci. loolu itam weesuwut na gën a xoolaat entourage am te gën a gëstuwaat te xam ne am na lu xew loo xam ne xamu ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi kenn ku ne tam li la war na ko def lu la war waratu bu ci jéem a dugg réew mi nag léegi ñëpp a ragal ndax tuumaalante bi bari na lu neex waay wax kenn rusatul kenn foo wax ñu am fuñ la dëkkale waaye nag loolu mën la daj am na ñoo xam ne àdduna du yàgg yàgg ba ñu nekk ci lu ñu war la nekk ñaanuñu ko yàlla am na ñoo xam ne àdduna du yàgg yàgg ba nekk ci li ñu war a nekk lu ñu war la nekk ci la ne waaye nag sutura lu am solo la ci ci ab jullit maa ngi koy wax tey ku ma doon waxtaan ma ne ko xam naa genn kilifa gu mag ci réew mi goo xam ne dafa mas nekk ci otom ànd ak ku dul soxnaam def soog daje keneen. daa wàcc su toog fi suuf ni ko suturaal ma ndax kii ma àndal du ma sama soxna te suuf si yooyu musibaam koo ko jéggal ko ñu dem ñu dem boobaa léegi mën na juróomet te kenn mosu koo dégg kooku kan kam dajaloon defaloon na ko sutura te su ko su ko su fekkoon ni ca jamono yooyu da koo waxoon loolu continuer ba nëgë ni kon ba léegi coow loolu dana ko toog te ba léegi kenn xamu ko kon sutura lu am solo la ci doomu aadama man nag néew mu Ousmane koo def néew moom defut waaye nag. lu lu mën a xew rek nañ ko def li wàcc laay taxalaam lépp leer naññ naññ naññ naññ benn par par la bañ am bañ ci am ñu teg ko ci yoon rek euh, sama xarit nag président Moustapha Niass nga xam ni maa ngi moom seqoon nañ lu baree bari ci jamono yi fi yi ñu bëggee Abdoulaye Wade jóge fi euh, maa ngi koy wax ni ko mën naa taawloo président Macky Sall donte mooy kilifaam nag di suñu kilifa ñun ñëpp. président Moustapha Niass mën na koo taawloo li may ñaan président Moustapha Niass teraanga ju nit di am ci àdduna yàlla jox na ko ba mu am at yii mu am nga xam ni tey Sénégal su demoon kër tafaa tëdd fa defatul dara réew mi su amee problème war nañ koo fekk kër kër Tafa waxtaan ceeg moom pour mu jóg ci taxaw ci maa ngi koy ñaan na yëkkatiwaat ab taxawaayam ci réew mi te moytu yu baree bari noonu laa koy ñaanal nag ñi nga xam ne ay mag lañ te ñii ci réew mi yëpp ñu defaraat seen toogaay defaraat seen taxawaay jàppale réew mi ak fuñ mën a ne euh, président Macky Sall itam xam ni réew mii am na ñoo xam ni moo leen yëf te ñoo ko gën fuuf ci ci jaamu yàlla ne ci lañ war a ne te tey yàlla dogal na moo leen yilif ku moo nga wujju ko man jàpp naa ni moom ñëpp war a sant yàlla waaye kenn waru ko cee jiitu ndax bi mu daataa nekk président de la république ndomb gu ne takk na ko ci ci ci réew mi tey bu dékkoon woon président de la république dem turam dootu fay ci histoire Sénégal te yàlla jaareel na ko foo xam ne am na ñoo xam ne ni dàqu leen a jàng amul lenn lu mu leen ëppale te loolu lépp suñu borom dimbali na ko ci ba mu jaar ci ba mu mujjee président de la république nga xam ne mënatu koo weesu ñëpp war a sant yàlla waaye na moo ci raw maa ngi koy ñaan. mu xam ni yàlla wàccoo naa moom na dimbali réew mi na yërëm nit ñi na xam ni amul APR amul ku ànd ak Sonko amul ku ne PS amul ku ne PDS ku fi nekk ku ne moo la jaboote kon loolu laa bëggoon a wax di ko wax te yàlla tax di ko dénk senegal yëpp di ko dénk kilifa yi diine di ko dénk ñuy politique nañ delloo si seen xel te liggéey réew mi feebar bii nekk ci réew mi doy na sëkk. te man damaa seetlu ni Sénégal léegi dara xewatu fi lu dul politique kenn talatul jaamu yàlla kenn talatul liggéey nit ñi nit ñi nga xam seen yoon néew ci politique sax dugal nañ leen ci loolu nag maa ngi ñaan mu dakk te kilifa yi nañ ci jóg nañ ci jóg parce que réew mi mag ngeen ko defar ba mu agsi fii damaa mas dégg ci ku ñuy wax Serigne Mbacke Ndiaye mu ne ñu fi nekk ñëpp di coow. tey doo wër réew mi ba gis ci benn dëkk boo xam ne dañ naan ñi fi coow nii ci politique bi seen maam a sañ ci dëkk bi kon ñi nga xam ne seen maam ñoo sañ ci dëkk bi gor tool yi yilif mbooloo mi àggale fii diine ji ba ñëpp am ci ñoom confiance ba dénk leen suñ seen bopp nañ xam ni am nañu responsabilité bu rëy ci kanamu kañ bàyyee seen ka leen bàyyee njaboot gi ak ëllëg ca kanamu suñ borom maa ngi encore di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi dem naa fa. waxtaan na ma moom déglu na ma la ma waxtaan moom nag duma ko duma ko wax saa yu xanaa saa yu jotee saa yu jotee nag danaa ko wax waaye daal la ma ko bëggoon a wax wax naa ko dégg na ab noppam nee na ma naa toog déglu maa ngi toog di ko déglu di siyaar waa Sénégal yépp